alaykoum maa ngi tudd Aminata Thiam euh, directrice générale ATCOM di organisatrice salon Made in Sénégal voilà li nu dajale tey mooy comme nu nu ko waxee euh, liggéeyal sunu réew euh, jëmale kanam lépp lu ñuy defar fii ci sunu réew parce que consommer local ñu wax maanaam jëfandoo li ñuy defar di dundee tamit li ñuy béy fii ci sunu réew parce que dëkk boo gis ñi développé yépp dañuy jëfandikoo ñoom li nu am te Covid 19 bi wane na ne dëkk yëpp dañoo war a résilient maanaam di jëfandikoo ressources yi nu am en interne euh, may gërëm nag ñi nu accompagner parce que yombul te message bi may lancé mooy sénégalais yi niñ approprié wu concept bi parce que sama seen lañ wax sunu Sénégal il faut que nu jàpp ci li ñuy def nii pour offrir visibilité la ñëpp képp kuy ndawu réew mi di liggéey ci consommer local parce que bari na ñuy liggéey bari na ñuy bay bari na ñuy def transformation mais amuñu visibilité te gis nañ ne un peu partout am nañ ay supermarché am nañ ay grandes surfaces et tout mais produits sénégalais yi fa présent wuñu te bëgg nañ tay ak code fra yi nu wax suñu respecter normes yi peut-être sénégalais yi dinañ dem ba tay seen produit mën ko extérioriser euh, jaay ko à l'international ba paré mën ko véhiculer si grande surface beaucoup de ko sénégalais qui kuy dem tey sawar nañ di dem di un ci yenn supermarché yi di jënd ay